alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala seydina muhammadin wa ala jamici wa asxaabihi ajmain xaji Mansour ñu ngi lay gërëm di jaar suñu kilifa yu baax yi fi ñu jaar ak suñu jur wii di def taakiid rek bu ndaw ci salaatu tasbiix yi xam nga xaaji Ibrahim كوكا خم خمني رجل ثقافي لا واي سني موم واخنا نيو تي بس بي ني بو نين بوجي ما غاتال لين تي باño سوري تي احاديثي وانواعها بوبا يرناني امنا نيو ضعفاء الحديث waye su fekkeni fi targhibat dañ koy dañ koy utiliser waxuma sax lolou waaye dama bëgg a wax ni gàmmu yii ñu ma xamee man Ibrahima saaxo ba di ko toftal ci sama tur wi ci wàllu cëslaay diine salaatu tasbiixi moo ko ëpp cëslaay ndax kat mawludu nabi biñ ko laajee suñu mag ñi suñu sëriñ si bi ñu koy wax ba di ñu jox condition ñu koy def it amoon na condition ندخ على عظموا عظموا ليلة الولادة حال كونه حسبة ننك بشرط إذا لم يكن نحو العرام حرام عدول لولو نولو لشيخ الخديم وخ جذب القلوب تعظيمه بسنة لا وخ لا منا أسيرني يقودنا للجنة mu yoroon téere yi moom bi mu avant muy dem di ko wax sëriñam comme ni ko Baye Xaaji Tafsir waxee léegi xam na ni anwaa'ul ahadis bari na parce que hadis am na vingt six façon hadis yu existé yu bokkul waaye daif bii ñu ci tudd am na bu mu ëpp doole moo ëpp doole makdhub marduud moo ko ëpp doole parce que xasan boo ca démarré ci saxiix متفق عليه أم جيد أم جيد جدا أم مشهور أم حاد أم متواتر يو يب بني أج جيسون نكو وياه بمني جهان صلاة التسبيح جي لمني شيء وخ لب لينكو جيسون أصبح من شرع من قبلنا خمغا بودي ماشي ادله الشرعيه العشره دفا بوكو شي addile yi ñuy mën a teg baaraam mooy charu man xablana te nag lu xew ci réew mi comme ni ko balaaj tafsir wax ñëpp waxandoo ci d'accord ci loolooy tudd ijtihaad amul benn masala bu mas a génn ci réew mi boo xamante ni boroom xam-xam yu ni wax nañ ci boo poussé nag yéeg ba ci kaw sa xel day gën a dal waxuma sax moom mi ko andi moom xaaji Ibrahim ci wóor gu ñu xamoon ci sixatul ictiqaad bi mu am gannaaw bi mu amee fahmal amiq moom daawul wax nii rek di dem waaye la muy wax yëpp lu mu daan jëfandikoo la boo demee ci jàkka ji moo fay njëkk ak ajam boo moo fa daan mujje mooñu daan sa moo ñu daan xeex ak ñun sax pour jaamu yàlla mm-hmm. lu mu lay wax lu ne lu mu mën a doon moo la ci jiit loola rek buñ ko xamoon salaatu tasbiha doy waaye boo montee ba àgg ci abbas nga war a xam ni yëf yi war naa mën a ne moom mi nga xamante ni mooy doomu ummu fadli ba lubaanatul kubra la moom moo am rakk bu ñuy wax lubaanatu suxra moo am rakk bu ñuy wax asma bintu umaysin moo am rakk bu ñuy wax yaa maymuna mu nga xamante ni axiru man tazawajaha rasul seen yaay moom it mën naa jur ku ne juróom benni góor la am kenn du ci yaafus waaye ibnu abbas mi dañ ko mujje tappal xibrul umma ndax xam-xamam fi mu ne nii ñi nga xamante ni ñu nekk ci keppaaru sayyidil wujudi te man lu mat junney xadis juróom ñaari nit rek lañu abu hurayrata moo jóg nekk premier am sept cent et poussière ibnu Omar moo ci topp xam nga ku ca topp Anas ibnu Malik ku ca topp mama Aïcha Abbas doog a waaye ci wàllu tawil ngir gi ko bi ñaanaloon moo tax mu mujje asbaha xibran lil umma kooku moo wax ci hadis bi jële ko ci kan Ikrama yoon yi ci jaar yëpp boobu moo ci gën a saxiix Ikrama mii moo nettali hadis bii te bu fekkee ni ñiy génne xadis it fukk ak ñett lañu te muslim moo génne xadis bi boo nee rawaawul jamaa muslim a ngi ci biir rawaawul xamsa mi ngi ci biir rawaawul arbaa mi ngi ci biir rawaawu cheykhaani mi ngi ci biir mooy deuxième après Bukhari moo génne xadis bi yooyu yëpp nag buñ ci àggul woon ngir yem ci ne xaaju Ibrahima rek moo ñu ko andil mu mënoon a doy waaye daf ñu joxoñ pour ne xool ne bu ngeen bëggee loolu ñuy wax sécurité ci seen xel ngeen dem xooli parce que docteur kat léeg-léeg boo demee bu la doyee bu la bindalee ordonnance nga dem ca pharmacie ba jël ko bu la neexee man ngaa bañ a xool lool ñuy wax notice waaye xool notice nag moom Ibrahima xamoon na ni kumpëg borom xam-xam moo tax mu joxaale ñu notice boobu bind ko ci bi xatt yadihi moom nag kenn du moom moo wax la ko tey بكت أمة الإسلام أستاذ أبو بكر كه موي وخ من فقد حبرها لعلم وحلم فيه للخلق نافع على مثله موم غورغي تبكي السماء وأهلها وفي أرضنا تبكي عليه المواضع فتنجد في كسب المعالي فنالها وأصبح متبوعا لما هو تابع موي لينك أصبح متبوعا لما هو تابع غورغي أنا بمو ياغ بنيو ياغنا تور تور ومو تدو wali fu mu am borom xam-xam fu mu mën am Ibou Sakho joxogn nañu ko mujjé nak mom faf ñukay joxogn mom moom na mu ñu daan joxonee ñële asbaha matbuan lima huwa ustad abou bakkar Ka moko wax ala mithlihi kumelni nak tabki samaa wa ahluha du fofa rek wa fi ardina tabki alayhi almadaji mada Sakho misbahan taqiyan muhadaban yushayyi'uhu nurul huda wa huwa laamiu لقد كان فينا مرشدا خير عالم به يهتدي منا مطيع وسامع وكان حنيفا يعبد الله مخلصا ابو الدين ابراهيم للخير جامع كوكاي حاج ابراهيم كوكاي باخو باي باي شيخ الحاج مالك موي باخو الاج قاسم كوكاي باي حليمان ساخو ميغا خامتيني مو ньо اندي وون في ñun ناك دانيو نياك chance بو غيسه ماي wax ni ñima bokkal génération tax ñu xam kuy gor neena la bo yoron so rojo di di wax ci alamat yu ñuy mëna wax ni nitu yalla la min rijalillahi nga xam ko sama wayjur netali na ma parce que mage bi li ma bari bariwul ñaari at la ma magee 70 ak léegi daawu ñu am na ci bo xamni ma nga tollu ci nam mu dess ci samam xel moy dañu kabar ba paré ni ñi yuuxu jëm ni ma diko laaj nak ñu ne ma dañu kabar ba paré yamb yi genn fi ku ñu wax alxaaji gay ak diw lañ daan wax ni ñom ñoo daan fekk peli jaay soow ni diko kepp ci suuf ngir yamb yi man fa dem nit ñi mëna julli ci jamono yoy Fatima jabaru sharif ñu ngi fàttaliku bi ñuy gune yit mu nekkon ci genn garab ci garab yi jaan nekk ci kawam mu yuxu ñepp ñewondo ta bobu ñuy gune mu bayiko nak mom bayyi fofa foofa di ñew fi di fanan fi di yendu fi ta bobu melul ni ni ko bay tafsir waxe moom nga xam ni nag min rijaalillaay ndax fexe fexe fexe ba allahuma doomu aadama yi nga ci am pourcentage taxamuñu la kooku kuy liggéeye tax oustaz sànq ne inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum ci Baay bu Saaxo laa ko déggee nee na ku dem ba mënatoo dara manoo manoo bay waaja de fexe la jël ciment ba mu tooy nga teg ci sa loxo ngir ñu mën la fàttaliku waaye moom bàyyi nañu loo xamante ni ñu ngi koy fàttaliku toujours di ko ñaanal ndax moom moom moo tax ay junniy junniy nit di sujjóot te xaalisan li wajhil karim kam min jibaayin saajidin laa laajoon suuf si maa ngi lay laaj yow ñaata franc nga xam ba nga déparé nekk mu mbañax ba léegi wa kam min aninin taibin xamoo ko kooku mooy xaaji ibrahim Oustaz Mansour bi ala wajil xulaasa maa ngi jéggalu Baye Alaaji Tafsir bu baax a baax a baax parce que yaram yi waxoon naa ne buñ ko fuusee bu tàkkee rek du baax maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah